asalaamaaleykum mbokk yi te nag amati naa naqar rek fas yéene wax li nga xam te moom mooy actualité muy jëf ju ñaaw ji nga xamante ni moom la waa Descos ak ñu ñuy àndal wala ñu nekk seen ginnaaw def soxna si di may Maimouna Bousso soxna si xaw ma ko mais ni ma ko déggee mu wax. nu ma ko gisee mu wax xam naa ni fulla ak fayda ak jom mi ngi ci moom naka la jigéen mën a takkee ndiggam di liggéey ñafe toute sa vie 2002 ba 2012 10 ans ngay tabax kër amuñu lu ñuul def ak lu ñu mën a jote jël kër komo ko mooy war a nekk lu mujj si doomu adama kañ la jikko coxorte boobu nekk ci sénégalais kañ lañu bon kañ lañu soxor kañ la sénégalais iñaan réew mi nag mi ngi jëm foo xamante ni tiit trop suñu ëllëg tiit ci trop ndax valeur yi ñu commencé di perdre yow moom yoroon caterpillar bi sax ak lu ñu la mën a fay am na jëf yu ñaaw ak jëf yu bon yoo xamante ne waroon leen ko nangu keroog maa ngi fàttaliku ci histoire ba ñuy jox Bilaal yat bi ne ko dóolal Amaar Bilaal xool ko xool jël yat bi sànni ñu joxar ko ko mu jël ayat bi sànni façon toroxal métti bu bu nekk def nañ ko ko waaye mu gëm lu mu gëm am na xale bu am na foo xam bu fa tolloo xel yi dañoo war a dem si dëmb ab jigéen tabax këram yéen ngeen taxaw ne da ngeen da ngeen di jàppale jigéen ñi yéen ngeen taxaw bu ñu waxee ngeen ni da ngeen mbubboo jigéen ñi nit lu mu mën a def ak lu mu mën a lu ko yoon mën a daan man bi jëtuma lu ñu def ak lu mu defut mais jëfin gi lay ñaawlu toj kër étage jigéen moom ko waxuma la jigéen doomu aadama sax laa wax am na jëf yu bon yoo xamante ne waroo leen ko nangu ndax kii ba muy liggéey de ñafe di am këram boobu yéen yéen a ngi loué en espace de deux ans trois ans yéen yéen fi tabax ay R plus quatre R plus cinq seen ñaar waroon naa daw. bes bu ngeen toge def image yi muy daw si internet seen yaram dafa wara daw jëf mënul gën ñaaw li te bu dee mbirum politique la xam nga ne ni gàcceel ngeen ñu amul lu gën ñaaw li amul lu gën a li dafa doy war Sénégal ñoo ngi noppi di setan rek ñoo ngi noppi di setan lu bari muy jàll ñu koy bàyyi muy jàll benn jigéen tax plus de 100 gendarmes taxaw baré baré koñ boobu yépp ndax lan ce toll tollu fo Ils légui ëpp sa doolé ëpp sa morom doolé ku mën sa morom duma lolu bu fa toll rek réew ma jëm ci quelle que soit sa position politique dañ ko wara respecter mo xam mu nekk ci Karim Wade mo xam muy diriger mouvement khalas mo xam mu nekk PDS lolou suñu yoon nekku ci ku nek am nga droit far la neex mener say activité politique librement lolou moy Sénégal tay tay yéen ñi ne gi bu leen doon toll nañ foo xamante ne réew mi il faut que ñuy waxante dëgg ñu ñu jiite ñu ñuy bëgg a moom ñu ngi ñuy bëgg a jaay doole am na loo xamante ne nag bët bu rusul toj te duma topp diw dafa fekk fu ñu jëm sorewul jël Khalifa sàll jaay ko doole tëj ndaw si xam lu ngeen mën a joteeg moom ak lu mu mënta mel kër waruñu ko jël di ko toj di ko daaneel comme ça di ko yàq nit ku liggéey toute sa vie am loo xamante ne moom la mooy héritage bu mën a bàyyil ay doomam ñu jël ko patax ñu jël ko tasaare ko ni mu yaqku li dafa ñaaw dafa bon ak xam fu indigal ndogal gi mëna juggé ak kuko mëna santané santané na lu bon santané na lu yes amna jëf yo xamna ne ngi xaw ci Sénégal buñu ko waxul wala buñu ko dénoncé wul on est tous responsables aduna japp len ni doole bu suñu borom may pouvoir bu mu a jox keroog yow ma xiyam dinañ ko utiliser si karamu ak fu bi mën a jóge ak ku ko mën a santaane lu bon santaane na lu yées waaye nag yàlla lu tëj bunt tëj fenêtre si xibaar yi mu mujjee jot dégg na am na sénégalaise bu bu buy Paris mom mo jël immeuble am jox ndaw ci mu dugg fa ak njabotam jël see bagage di génné di sandi melni nit ko xamanté da nga tok ay ay ay ay at lu luyaas ñu lay génné xana uc sax bu ñu la wara génné di lañu di lañu ko notifier 48 heures nga xam no def waye jël la taxañ taxañee la kër gi nga tawax ñak ko tabax ko 2002 ba 2012 nga ñëw taxaw ñukay sandi mom sax dafa muñ dafa mëna muñ bu doon man. dinaa tëdd caterpillar bi jaar sama kaw bu dee loolu la leen jaral lu mu leen jaral rek dina dina la ko jaral ëllëg dinañ xam kuy tooñ su yàlla suñu borom dina àtte mbokk yi loolu laa ci bëggoon a wax pour wane sama pour montrer sama solidarité ak soxna boobu ñu naan a buso yàlla xam ne ni xaw ma ko musuma ko sax dégg laata démb musuma ko xam jàppal ni ñu ngi bokk yow tiis bi ñu ngi bokk yow naqar bi te ñu ko santaane nag fii ba déwén yàlla suñu borom dina leen ko wan moom rek mooy buur moom rek moo mën moo mën ci jàmm bi dara moom rek mooy dogal dellu di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf.